والقلم وما يسطرون bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu le ba yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee C3S mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun مرامي عند الله أحوي سلمدا بجاه الذي وشملت بنعمة وشملت بنعمة الشريعة الحاضر منه والباطل وعلى آله الأعيان وصحابته الأعلام صلاة كاملة تتصل ما اتصل الليالي والأيام أما بعد فيا أيها الناس إن شهركم هذا رجب الفرد الحرام قد ذهب سلطان ولم تسلم فيه عبادة الله فأكثروا فيما بقي منه من هذه الحياة والأعمال الصالحات والبر والطاعات وإن فيه يوما عظم الله على سائر أيامه كلها ويستحب تعظيمه شكرا لله والتعرض فيه والتعرض فيه لنفحات رحمة الله قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن صامه ابتغاء وجه الله ومرضاته عوض الله بسلامه أجرا كثيرا أجرا كثيرا فاجتهدوا يا عباد الله واعملوا عمل من يعلم أنه راجع إليه يجازى على الصغير والكبير سبحانه أنه لا إله إلا الله العلي وبلغنا بمنته الأزمة المباركة الفاضلة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده الأمي الأمين ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها الناس بالأمس كنا في فسحة من شهر الله أجل واليوم قد كاد يغيب عنا هلاله ويحتجب وأعرف الانفراد وقد آن رسوله وبلغ الانتقال والسباق دليل وقد ظهر فيه بالبغية بالبغية الصابرون ونال فيه الغيبة والحلم المقصرون ودعهم وداع الحق ودعهم وداع الحبيب وزوجوه من الخير بأوفر حظ ونصيب وتأهبوا للقاء شعبان شهر التوبة من العصيان والطهارة والتنوير للقلوب والتسهيل للحساب والتأمين من العذاب والنجاة من النار والوسيلة إلى العزيز الغفار وفقنا الله لأعمال المقربين وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبناها والأرض وسعها ونفسه وسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر